asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yasuruna wa naxnu fi ixtifaali taqarruji dufaatil ula min almahad cheikh alislam alhaaji ibrahima ñas bi nicma nadir hada almahadu alladi assasahu muassisu alqariyati li taalimi abnai albilad علوم الإسلام والعربية ما يستنيرون بها طريقة الحياة وفهم دينهم فهما صحيحا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقمد برحمته لهذا المؤسس ويجازه عنا خير جزاء جازى به مجاهدا مرشدا في أهله بكي ñu ngi nuyu kilifa yi teew ci jotaay bi imaam yi boroom xam-xam yi boroom ndombo tànk yi taalibe yi jàngalukat yi góor ak jigéen ak jàngkat yi ñëpp di leen wax asalaamaaleykum di jagleel ci nuyoo googu imaam Abdoulaye Diouf mi nga xam ne moo fi toogal imaam yi dégg nañ kàddum imaam moo fi moo fi uuti imaam Abdoulaye Ba. ak imaam Salihu Seck waaye itam ñu ngi jagleel na yoo suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin Niass nga xam ne joxe na fi kàddu yu am solo di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaye dina yu itam suñu nijaay alxaaji Mbay Jaase nga xam ne ci ndomboy tànki dëkk bi la bokk ñu ngi fiy nemmeeku Pa Amadou nga xam ne ci jaww diini jumaa ji la bokk ak ñoom Pa Silla bàyyiwuñ kenn waa dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye ñu ngi jagleel nuyu itam sëñ Babacar Diop mi nga xam ne mooy muazzinul masjid yi ak mbooleel muazzinin yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey boobu tey mu nekk bés bu rëy nag di bésu taarix ci école bi nga xam ne moom la tuddee ma Alhaji Abdoulaye Ibrahima Alhaji Mahad Cheikh Cheikh al Islam Ibrahim Niass fii ci Néma Nazir nga xam ne tey mooy bés bu njëkk wala yoon wu njëkk taalibe yi gannaaw bu ñu eggee ci senior secondaire yi nga xam ne egg nañ ci li ñuy wax graduation tey ñu ngi ci first baaj ñu ngi soog a graduate muy lu rëy loo xam ne egsiwut fii lu mooy gannaaw coono bu rëy ak liggéey bu sell boo xam ne ñi nekk ci école bi dalee ko ca mudir ba imam Salihu Seck Eh, imam Omar Thior ñoom Socé Thiam ñoom Abdoulaye Mbow ak sëñ drame ak mboolemul asatisa yi nga xam ne ñu ngi ci école bi sonn nañ ko ci school bi moo tax liggéey bu rafet bi tey ñuy dagg meññetam comme ni nga xamee ne it way jur yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi di jàngulu seeni doom ñoom itam am nañ ndam lu rëy a rëy rëy bés tey waaye ndam loolu yëpp nag buñ ko loon seet danañ ko delloo ci ki nga xam ne mooy ki sos dëkk bi tabax jumaa ji tabax école bi ngir samp nation boo xam ne dañuy xam ba pare xam seen borom di ko jaamu kooku mooy kan du kenn lu moy cheikh Mouhamadou Nazir cheikh Ibrahim ñas mi nga xam ne moo bàyyi woon mboolem yitteem ñëw fekk fii mu nekk àll bu lëndëm mu ne fi ak i taalibeem fàkk ko def fi liggéey bi ba tey ñu egsi fii kooku fu ñu toll amal nañ ko njukkal di ko ñaanal comme ni nga xam ne itam ñu ngi ñaanal xalifaam Cheikh Baye Mouhamad Nazir Niass mi nga xam ne gannaaw bu wayjur ba joxe gannaaw ba léegi moo ko uutu ci liggéey boobu te dara manqué wut ci kon loolu lu rëy la loo xam ne njukkal la ñeyal waa dëkk bi ñeyal taalibe yi ak jàngalukat yi ñu war koy delloo famille yëpp ña ci seen liggéey war rafet boobu nga xam ne defal nañ ko dëkk bi tey nag ñu ngi bugg a waxtaan ak talaba yi ci ñi nga xam ne jeexal nañ ñu ngi leen a njëkk a ndokkeel ci jeexal gi ndax jàng ba egg fii yombul ñu bari dañuy dagg yoon wi yàkkamti tayal ñii duñ man ñu bàyyi kon ñenn ñu néew ñoom la yàlla may Pastef ak dogu ak ni jàng méttee bañ egg si fii kon ñu ngay nduk njukkal ñi nga xam ne tey ñoom ñooy jeexal tey ah, ñoom ami sekk ak seen tim bi ñu ngi leen leen dokkeel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla liggéey bi yenn yàlla barkeel ko li ngeen jàng fii ci école bi yenn ko yàlla barkeel ñi njëkk a wax wax nañ ne école bi ak dëkk bi daa barke ba pare te li fi njëkk a jaar comme ni ko suñu mbokk Hadi Diop waxee suñu mbokk sëñ Ousmane Mbow seede la ci ak taaliba yi nga xam ne tey jaar nañ fii doon ay kàngaama ci ay barab yu fasante ko loolu firnde la la ci ne fii fu barke la école bi barke na waaye man duma wax rek école bi moo barke waaye dama naan dëkk bi moo barke dëkk bi ci boppam moo ànd ak barke dëkkee fi rek barke boppam la ndax dëkk bi dafa ànd ak lijaaba comme ni ko alquran waxee la masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquuma fihi fihi rijalun yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dëkk boo xam ne wala jumaa joo xam ne dañ ko fondement ci kaw ragal yàlla nga dem siyaare ko taxaw fa moo gën a ay dem faneen li ko waral mooy ñëfa dëkk ay góori yàlla lay yoo xam ne dañoo laab bugg laab kon loolu mooy sirru barke dëkk bi moo tax borom xam-xam yi ci nettali imaam ibnul Qayyim Jawzi dañoo werante ci ndax barke yi nekk ci dëkk yi ak ci jëmm yi ak ci jam jamono yi ndax jamono yee ko jagoo wala jëmm ya ne dafa def lañu fay def tam neex yàlla moo ko waral ñu werante ci ñu ne barke bi màkka barke ndax barkeb asal la bu yàlla moo makka barke bi alquran barke jibril barke ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi barke ko ak mbooleem lu barke niki weeru koor ak bésu ajjuma ndax seen barke yooyu barke luñ bindal la ca asal ñu àndak ak moom ñëw moom wàcc moom wala bëri li fay xew lu neex yàlla ci waxtu yooyu ci barke yooyu ci jëmm yooyu moo waral ñu barke maanaam makka lañ fay jaamu yàlla lu bari di ko fa tudd néegam ba nekk fa ñëpp di fa jublu moo waral mu barke wala bañ ko mooñee ci asal dafa ànd ak barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jub gi mu jub di jaamu yàlla dàq jaamu yàlla ñëpp ba yàlla gërëm ko tagg ko ci alquran ndax looloo waral barke bi walla bi ko yàlla bindee daf ko mooñaaleeg barke nga xam ne su loolu nekk doon ci moom itam mu nekk ku barke werante la jibril ndax lim doon wàccee wax yu di ko indi ci yonent yi dama ko ñëw nekk njiiti malaaka yi moo tax mu gën a barke gën a jege yàlla wala ba ko yàlla bindee ci asal la ko moo loolu werante la nag ci diggante borom xam-xam yi nii ñii ne bële waaye lu ci mën de xew barke dëkk yi fu ñu wax ne barke na ci diina rek boo demee da nga fekk lu neex yàlla sax fa jëmm ju ñu wax ne jëmm ju barke la boo ko xoolantee da gis ne moom melokaanu lu neex yàlla mu ngi ca moom diina ju ñu wax ne diina ju barke la waxtu wu ñu wax ne waxtu barke la kazalika boo ko seetantalee lu neex yàlla lu mu fay xew bëri na. bu dee weeru koor weeru barke la xam ngeen ne weeru koor liñ ci jaamu yàlla ci jàngal Qur'an ci joxe asaka ci saraxe ci dellu ci jumaa yi ak bàyyi lépp lu yàlla tere ci yenn wax ak jëf bëri na ci kon ndax looloo tax barke. lépp mu ngi ci boo ci jël rek mu nga ca waaye li ñu li ñu tax indi xisa bi mooy neema dëkk bu barke la ndax ci ëzal la yàlla moo mooñaloon neema loolu nga xam ne fokk ku barke dina fi ñëw ñu barke dëkk fii ñuy jaamu yàlla di jàngal Alquraan di barke wala bi ñu fi dëkkee ba pare ñu sos ko ci taqwa jaamu yàlla gi ñuy def ci dëkk bi moo ko soppi ba mu nekk barke loolu yëpp boo ko xoolante lañ koy gis ci neema boo xoolantee neema ne ki ko sos nim def ba yàlla wan ko dëkk bi ak niñ ko ko tegtalee loolu dangay ngay xalaat gëm ne bon ci asal barke jiitu woon na fi borom soog a ñëw waaye boo seetloo itam biñ sosee neema ba léegi liñ fay def ak niñ fay dundee jumaa ju rafet juree ji tabaarakallaa saa su nekk ñuy fay julli julli juróom di fi tudd yàlla école bi ne fii ñuy fay jàngale alquran nit ñu baax ñu dëkk fii ñuy fay def gàmmoo di def conférence di waxtaan ci yàlla loolu it rekk mën nay barkeel ab dëkk ak ak aw nit kon loolu xam ko lu am solo la dund ko itam lu am solo la kon ñu ngi ndokkeel waa Neema ci li fi nekk borom xam dañuy wax ne nag am ko te xamuloo ko ñàkk ko xam ko moo ko gën kon nañu fexe xam ne lu rëy lañ am ñu fonk ko lool yan nañu ci yàlla defal xale yi nga xam ne ñooy génn tey dese ngeen lu bëri dangeen ngeen a door bokk na ci liñ leen a digal mooy ngeen di bëri lu ngeen di riit ngeen bëri lu ngeen di jàng téere yi di ko mokkal génn sanawiya li mu firi rek mooy yow fu mu nekk nii kat man ngay omot sa bopp gis téere bi man koy jàng xam ko foofa nag nga war a commencé nag di jàng di jàng di jàng ba xam-xam ñëwal la waaye boo ne génn na sanawiya rek jeexal na téere yi moom dafay dem xam-xam da koy da koy yeew comme ni nga yeewee sa xar mbaa sa béy boo ko deful mu dem kon ñu ngi leen a dénk ngeen continuer gën a fonk xam-xam gën a jàng ndax ci loolu ngay amee xam-xam ku ñëw Abbas Mahmoud Aqad ci ñi njàkk ci ñi dàq jàng ci Azhar ci Misra Oustaz xam na ko waaye borom xam-xam yi nee na mu ngi yem rek ci saaris ibtidaaya ci la yemoon waaye di di riit di jàng di jàng ba mujj nekk philosophe bu mag mujj di bind bind yoo xam ne docteur yu mag yi sàmm sax mënuñoo xam lu muy wax lan ma ko ko may mooy dëkk di jàng kon nañ bëri li ñuy jàng téere yi nañ bëri li ñuy déglu géeyu xam-xam yi léegi bunti xam-xam yomb na boo demee ci YouTube bi da nga fekk borom xam-xam yaa ngay wax boo demee ci Facebook boo demee ci fu nekk borom xam-xam yaa ngay wax kon léegi bu njëkk daan nga gis ku bëgg a am xam waaye du gis ku ko jox xam-xam loolu moo taxoon ñi njëkk ñi sonnoon lool ci génn tumuraanke dem ba Égypte ñi dem ba Saudia ñi dem ba Soudan léegi mën ngaa toog fii conférence yi daw ci université yooyu su la neexee nga topp ko xam li xam lii xew kon nañ jox yitte xam-xam te xam ne comme ni ko oustaz Mouhamed Lamine su waxee loolu mooy xam-xam aw askan li leen mën a gaaw a gën a ekkati mooy xam-xam al ilmu yarfau baytan laa imaada lah wal jahlu yahdimu baytal ilmi wa sharafi xam-xam dees na mën a yëkkati askan wala néeg boo xam ne kenn xamul leen ci taarix waaye réer tam bu làq bu ñëwee ci aw nit ñu làmboo ko ñu nekkoon ca kaw ñu xam leen ci kawe mën na leen a suufeel ba kenn dootu leen xam loolu moo tax woykat ba ne euh, kun ibna man chita waktasib adaban yugnika mahmuduhu an nasabi laysa alfata man yaqulu kaana abi lakin alfata man yaqulu ha ana za mu ne askanalul ci ku la neex nga ne man mooy suma baay waaye amul solo li am solo mooy utal xam-xam bu ànd ak yar boo demee ba fees dalla xam-xam boobu ku la neex nga askano dégg nga sama wax ji su la neexee nga génn gannaaw boo jàngee ba am xam-xam di dund dund ak diina bu sell boo génnee fii ñu ne xanaa yow ci famille baay bi nga bokk imaam Abdoulaye Ba léeg-léeg imaam Abdoulaye Dioum léeg-léeg gaa yi jaawale ko mu ne mu ne waaw <laughs> man it damaa ñi moo di wax waaye léeg-léeg gars yi jaawale ma damaa ñu wut a wax nag su ko defee loolu loolu muy firi mooy mbir mi muy xam-xam dañoo wax ne duhut donoog benn askan ñoo ñam ñoo ko moom xam-xam melo la ci yàlla mu nekk min harabaniya muy koy may ku ko soob waaye nag ci sabab nangoo jàng jox njàng xàqam jox xam-xam xàqam kon nañ bokk góorgóorlu ut xam-xam loolu moo tax xisa yi la Lamine doon nettali am solo lool am na ñu bëri ñu alquran junju seen ak kowe mu ngi jaaree ci xam-xam mu tudd ci maam Adama alayhi bi ko yàlla bëggee bind malaaka yi jaamu lañ xamoon jaamu yàlla lañ defoon ne mooy lépp ñu ne ko bu dee ku la jaamu rek moo tax nga bind beneen bindeef jaru ko ñun doy nañ te feexlan su fekkoon ne yàlla ku ko jaamu rek la soxla woon malaaka yi doy na waaye dafa am loo xam ne dafa am jaam yi ko war a meloo te mooy xam-xam te aadama ak ñoñam ñoo ko moom moo tax bi mu bindee aadama lim ko feeñale mooy exame ko ci kanam malaaka mu gaña leen ci xam-xam wa allama aadama asma kullaha summa aradahum ala almalaika fa qaala anbi'uuni bi asma'i haula qaala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim qulna ya adam anbi'um bi asma'ihim falamma anba'ahum qaala alam aqul lakum inni aalamu xayba samawati wa ardi wa aalamu ma kon mbir maa ngi noonu kon aadama mi malaaka doon conteste ci yàlla ne ko jarul nga di ko bind mujj nañ jébbalu nangul aadama mu jiite leen ne mooleen gën ñu sujjoodal ko ngir lan ngir ne moo leen ëpp xam-xam benn ngoog kon aadama mi mujj a bindu ci mbindeef yi moo jiite mbindeef yi gën leen te lim ko wan li ko may loolu mooy xam-xam kon nañ uuti xam-xam ndax yàlla boole ñu ci kaaraanga googu nga ñëw ci xisa bu yéeme yéeme moo di ne rab woowu ñuy wax xacc rab woowu ñuy wax xacc ñëw na ci alquran ci ñetti xissa ñaar ñi ngëneel la beneen bi xaste la bi mooy dafa amoon benn boroom xam-xam bu xam-xam ci giidug ban Israël ku ñu wax ba Balaam ibn Baura Balaam ibn Baura dafa eggoon ci xam-xam ba xam lismulaahil azam tur woowu nga xam ne ñoom Sid lemin ñoom Baye Nazir ñoom ñoo ko xam tabaarakallaa boo ko xamee yow amatul dara dara lu jafe ci yow ci kaw suuf loo bëgg rek dafay yomb ci yow waaye tur ci sell lañ koy dence ci sell lañ koy amee balaam ibnu baawura am ko ba pare di ko caaxaane caaxaan googu mu dugal ca luñ waru doon a caaxaane mu soppeeku nekk da seytaane mën a yàq ba seytaane yi ñëw di nekk ci moom taalibe yàlla sib jikkoom ba sib meloom wa di ko xas xasee ko melokaanu xacc watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaqa minha fa asbaha min algaawin masaluhu ka masalil kalbi in taxmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas zalika masalu lazina masalu qawmi lazina laa yumin bi ayatina mu ne jàngalal gaa yi kawteefu waaje ma joxoon xam-xam boobu ma wax léegi mu lismu laay laazam waaye mu summeeku ca yoon wa commencé di ko caaxaane misaalam mu ngi mel ne ab kaj boo xam ne mu ngi ŋaang di yalkati soo dooree mu yalkati soo baxee mu yalkati bi maanaa nit ku amul kóllëre nit ku mënta sàmm kóllëre diggante moom ak boromam kooku jox ko lu baax amul njëriñ ci moom loolu kooku mooy Balaam ibnu Baawura foofu la yàlla tuddee xaj ci melokaanu xaste waaye yeneen ñaari melokaan yàlla tudd xaj ci alquran yëpp tagg la benn bi mooy yasalunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakum tayibaatu wa ma allamtum min aljawaarihi mukallibin na tuallimuunahunna mimma allamakumullah danañ la laaj lan moo dagana lekk mu ne leen lépp lu yàlla sàllal ci tayibaat may naa leen ko ngeen lekk ko ak li nga xam ne seen xaj yi rëbb yi ngeen jàngal rëbb yi ngeen jàngal rëbb seen xaj yi rëbb yi ngeen jàngal xamal leen rëbb déglul xamal leen baatul xamal leen tuallimuunahunna ñu ne soo amee ñaari xaj nga gis sa njow mboor nga ne pro trop sa xaj bi nga jàngal nga ne bisimilah ne ko trop mu daw topp ci njomboor mboor bi beneen xaj fële fële kër ñoom soose boobu ñëw di ko feelu si nga ñëw ñu daa ñu làq ko moom gannaaw jumaa ji nga fekk ñu jàpp ko te xamuloo ndax sa xaj bi nga jàngal moo ko jàppam ndéet wala xaj soose bi nga xam ne jàngalu ko ñu ne doo ko lekk te yëpp xaj la lan moo wuutalee ñaari xam-xam xam-xam bii moo tax xaj bii nga ne ko trop mu jàpp nga lekk xam-xam boobu xaj bi ko ñàkk bi mu jàppee doo ko lekk te jàpp-jàpp rek la li leen uutale mooy xam-xam ñu ne nag su fekkee ne xam-xam moo mën a uutalee ñaari xaj naka nag nit ak keneenam su fekkee ne xam na ko nit bu xamee dafay kawe loolu moom lañ ciy jàngale beneen bi mooy beneen xaj bi mooy xaju waa ahlu kahf moom lan lañ ko taggee mooy àndandoor ak ñu baax àndandoor ak ñu yiw àndandoor ak ñu sel dafa yóbbu borom mu sell ba ab xaj sax daf cay sellaale loolu moo tax nga gis ci suudu Kahf da nga dégg mu ne yaquluuna salaasatun raabi'uhum kalbuhum wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil bi bàyyi mu ne foofu la wanee ne bi mu waxee ne rajman bil xëy bi la waxee ne seen lim du ñett seen lim du juróom wa yaquluuna sabatun wa saaminuhum kalbuhum mu ne waxut ne rajman bil xëy bi qul maa yaalamu iddatuhum illa allah ñu ne foofu lañ xamee ne kon njëkke gaayee seen lim ba juróom-ñaar lañ te fexlan juróom-ñaar lañ xisa ba gudd na waaye lu ci mënta wa kalbuhum baasitun ziraaihi bil wasit yàlla mu ngi tudd waa ahlul kahfi di leen tagg waaye fu mu waxee rek ne seen xaj ba seen xaj ba ñett lañ ñeente ba xaj ba la juróom lañ juróom benn mooy xaj ba ñu dem ca ma ca biir xundu wa tëdd seen xaj ba tëdd ca pegg bunt buntu xundu wa baasitun siraahi mu ngi tàllal tànkam ya dal di ku ñëw tiit foo ne ndax xaj bi mu ngi dund kon xaj boobu yàlla may taraangaak mu dund ak ay nit ñetti téeméeri at ah ci benn place yàlla di ko tudd ci alquran ñi di ko jàngat ba yowmal qiyaama la ko ko may mooy handu ak jaxasoog ñu yàlla gërëm kon su fekkee ne ab xaj la yàlla may taraangaak gu gu em neenu ngir kàndoo googu naka ay nit yoo xam ne dañoo àndoo ku mel ni Cheikh Mouhamad Nazir dëkk dëkkam di jëf lim nañ jëf lan lañ yaakaar ah ah imaam kon loolu ay xisa yu am solo la yoo xam ne nañ ko bàyyi xel ci kàndoo gi ak itam ci xam-xam li ma liggéeyal doomu aadama kon nañ gën a sonn ci xam-xam nañ ci gën a fere nañ ci jox liñ nañ joxe liñ am yëpp ci xam-xam xaalam ak alalam moom la jaay ci lislaam ñu si ñu siñeel ko xat mu faydoo xaalam ak alalam lim am yëpp daf ko jox ci lislaam kon nañ jox suñ waxtu yi lislaam nañ jox suñu alal ji lislaam nañ ko jéem a xam te buñ ko xamee nañ ko appliquer loolu rek foofu la nit rawante waaye teraanga du wut ak garab goo xam ne gu ñuy jëmbatal aw nit la ñoo ko moom waaye dañ koy uut ci xam-xam ak liggéey ñu ngi koy uut ci xam ak liggéey loolu moo tax réew yu bëri raw tey ay réew yu bëri te boo setantalee sirru ba du dara lu mooy xam-xam buñ teg di ko appliquer kon mbokki jullit yi nañu gëm ne mahad bii buñ ko toppatooyee toppatoo njàng mi toppatoo xale yi jàppale leen mën nañuy dem ba jamono ñëw ay ministre ay président yu gé yoo xam ne dañoo jiite réew mi ak diina ji mën nañ cee bayee ko kon yal na yàlla defal ñu loolu bu baax ñu ngi delloo ngërmande di ko delloo ji nga xam ne ñooy ustaas yi nekk ci école bi di jàngale ndax njàngale lu métti la xam xamle lu métti la ndax dañu wax ne métier yi ñaar ñoo ci gën a métti benn bi mooy jàngalekat bi ñaareel bi mooy sàmmkat bi nga xam ne mooy nekk ci àll bi di sàmm sàmmkat bi bu nit ñi nekkee ci ker yi di waxtaan ci seen air condition bi moom nga sol mbaxanaam ca àll ba ak itam ca naaj wa di sàmm xar yi ngir nit ñi mën a am koom-koom waaye itam jàngalekat bi nga xam ne dañ jël xale yi yëpp xale yi uutee jikkoo uute néeg yuñ béyee ko xamuñ daara ñu ñëw nga amee leen. di leen teete di leen xamal di leen jàngal bañ mujj mën a jàng taxaw di wax araab wax dëgg yàlla ñun booy jur yi amal nañ jàngkat yi njukkal boo xam ne mënuñ leen koy fay ba yomal xiyaama kon nañ leen de ñaanal ba pare jox leen cër di leen jox buuñaa léegoo léeg ñu yàkkal leen sax léegoo léeg ñu dajeek ñoom dal leen booxal ci seen loxo xam ne lu ñu leen jox rek mënta fay lu em ni li defal suñu doom yi ci xam-xam loolu moo tax waykat ba mu ne waa wa fihi tabjila kaada al muallimu an yakuna rasula foo dajeeg jàngalekat dee ko teraangaal dee ko jox cër ndax moom jàngalekat boobu daanaka rek tuutee des mu nekk ab yonent ndax li nga dégg ne baax na lépp ñu ne bàyyee ko wax li nga dégg ne baax na lépp ñu ne yonent bee ko wax xameewuloo ko ci moom bàyyi xameewuloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ko xamee ci gémmiñ ak sab jàngalekat kon kooku daanaka rek ab yonente la ci yow moo tax ñu ne maam maam ma Malay Caam ca Fana Umiya dafa toog benn bés mu ne man yonent bi du sama yonent ñu ne ko ay bay Malay yi nga wax ëpp na di mu ne waaw man gisuma ko di dégguma ci moom man bàyyi laa xam di ci moom laa déggee moo ma xamal ne yonent bi baax na ma gëm ko moo ma xamal ne dina lislaam ma gëm ko mu jëf ko ma gis ko ci moom kon man moom laa xam mooy suma lépp kon loolu njàngale la ne ab taalibe bu dëggoo kim xamee lim xamee njub kooku la war a jox léppam waaye ñun léegoo léeg nag dañ koy bàyyi nag dañ leen tuuti lool ñàkkal leen fayda lool te loolu dafay indi xam-xam bu néew doole bàyyi wax na ci tafsiratul anaam ne bul am kersa benn yoon ngay wax xam-xam wala masala bi nga déggee ci sa sëriñ wala ci ab borom xam-xam boo koy nettali nga tudd ko waaye léegoo léeg nga xeeb tudd sa sëriñ bi ñu xeeb la ci kanam mbooloo mi nga jéggi ko di askanalaw ku siw ne moom ci laa jànge fekk yow ki nga jàngee mu ngi te xam nañ ko kon dellu wax ne ci xaadi laa déggee masalab sàngam dara nekkul si xaadi ne wax ne ci imam Abdoulaye Dioum ak imam Cheikh euh, Lamine Niass laa déggee masalab sàngam dara nekkul ci kon loolu mooy yoonu riwaaya noonu la xam-xam daan tasaarowee looloo taxoon nga gis benn waaye ci saxaaba yi ak i taabiuuna yi nga gis benn waaye jàng ci waaye ba mu yàgg waa jooju ñëwaat di jàng ci yow nga gis ku riwaaye xadis ci sëriñam ba mu yàgg mu fàtte ko moom sëriñ bi mu ñëwaat ci taalibe bi taalibe bi dal koy riwaayaal kon xam-xam amut ne ku siw kii ci lañ ko war a jëlee wala moom lañ ko war a askano waaye foo ko jëlee rek waxal na ci diw moomu laa ko jële te ñu bari tey dangay ngay ñëw di nettali xissa yoo xam ne ci baay lañ ko askana wala ci Cheikh Mahamad Nazir mu leer na leen fekkee wala ko nga ne Cheikh Mahamad Nazir nee na te waxuloo foo ko loolu nañ ko moytu nañu wax kiñ ko jëlee sammu lana riwayatakum fa inni riwayata min ad-diini fa lawla al isnaadu la qaala man shaa ma shaa da leen ñu waxal ki ngeen jëlee seen xam-xam yi ngeen di nettali nettali ki nga jëlee xam-xam ci moom loolu ci diina la bokk bu duudoo mana a askanalal kii nga jëlee sa xam-xam ku ne kum neex nga taxaw wax lu la neex na yàlla ko wax kon ustaas yi boroom xam-xam yi ñu ngi leen delloo njukkal di leen ñaanal yàlla xamal na yéen a ngi liggéey ci askan wi liggéey boo xam ne dara gënu koy foor te bul yàkkamti siw bëri na tey ku siw ci xam-xam ay sëriñam kenn xamul leen Imam Malik siw na ci xam-xam sëriñam yi siwuñ noonu comme moom imaam Buxaari ku siiw la ci xam-xam ñan ñooy ay sëriñam kenn xamul leen ñeen ñeen ñoo leen xam imaamu Ahmad imaamu Shafii demet ci borom xam-xam yooyu ba ci imaam Malik si imaam Sëñ Bamba ñooñu nga xam ne ñu siiw ci xam-xam ah, seeni sëriñ kenn xamul leen kon du sarta ki sew ki ci xam-xam ñu xam ay sëriñam kon booy nettali del wax fi nga jëlee sa xam-xam ba pare nañ jox jàngalekat yi ak imaam yi cër ndax ku fonk sa borom xam-xam yow sa diina kowe na ku fonk sa elimaan fonk nga sa diina waaye ku toogaaleeg borom xam-xam yi yow sa diina ñoŋ na kon nañ la toogaaleeg borom xam-xam yi tey jëlee ñoom lu wér ndax loolu mooy tax ñu am xam-xam kon wax ji bëri na te xam naa ne sax amul njëriñ waaye nag bés bi moo ko toll mu jar waxtaan lu bari ñu ngi delloo njukkal waa dëkk bi waaye ñu ngi delloo njukkal itam gouvernement Gambia ndax boo gisee suñ sëriñ mën a ñëw fii samp fii lii léggéey fi liggéey bi dafa amoon ay njaatige yu ko dalal ñoo moo du baax du leen fàtte ak ñi nekkoon éducation ñooñu ñoo ko dalal yaatalal ko ba liggéey bu rëy bi man fee nekk waaye duñ fàtte itam baay yu baax yi nga xam ne ñoo nekkoon ay saxaabaam nekkoon ay soldaaram ñoom pa jarga mbow pa mbay caam maam Cheikhou Diouf ak waman la fa li ku lim juum ñooñu liggéey nañ fi liggéey bu rëy kenn du fàtte loolu kon taarix bu am solo di ko nettali daf ko jar démb rek dama doon waxtaan ak benn borom xam-xam muy imaam Ousmane Dia mu ne ñaari xeetu baay moo am baay joo xam ne askanoo ci gàcce la ñooñul ñooy yéefar yi waxoon ne inna wajadna abaana ala ummatin ñooñu ay baay lañ yoo xam ne ne ci laa bokkoon baaxut waaye dafa am baay yoo xam ne askanoo ci ñoom tiitër la kenn ku nekk na nga xàmmee bu baax su fekkee ne yow say baay tuubeel lañ dégg nga biñ duggee ci lislaam yàggut kon bu leen tiitëroo amuloo la tiitëroo waaye su fekkee ne baay yu mel ni maam Mawlana Cheikh Ibrahim nga am bàyyi mel ni Cheikh Mamad Nazir ñooñu fu la neex toog fa tiitaroo leen ndax loolu la yaquba waxoon ay doomam wa is hadara yaquba almawt qaala li banihi ma taabudun min baadi ñu ne ko naabudu ilahaka wa ilaha abaaka ibrahima ah wa ismail wa ishaqa yonent yàlla yusuf dafa noonu ca kaso ga wa tabaatu milata abaayi kon bàyyi baax kenn du leen am bàyyi yu mokkal alquran bàyyu taalif bàyyu taxaw fu ne ci àdduna si def fa xam-xam kenn du ko am di ko ñàkk titoro wala di ko ragal titoro kon loolu laa bëggoon tëjee sama waxtaan di leen jottali leen nuyoo waa Maroc maa ngi wax oustaz léegi ne ko gis naa lu ma yéem ci Afrique boo demee Afrique borom xam-xam yi ci réew mu ne boo leen laajee ci li ma gisagum ñu ci gën a bëri ci ñetti ñi lañ bokk ñu jàngee jaame islaamiyya a Munawwara bari nañ lool de moo dem fekk leen fa ñu ngi am ñu ngi am xam-xam naka noonu ñu jàngee Soudan bari nañ lool ci Afrique waaye taalibe Baay itam bari nañ ci Afrique ñett ñi daanaka ñoo ñoo Afrique dëkk boo dem da nga fekk foofu li ci gën a yéeme nag nga fekk ku dëkk Côte d'Ivoire ñu ko wax Chérif Chérif Omar mu dëkk Côte d'Ivoire gis ma leen ne naka nga def tamaa nga déggoon mu ngay làkk ay bambara ma foo koy déggul bambara ma ne foo déggee wolof. mu ne ma maa ngi nekkoon Kaolack yaa ngi dégg ma dajee ko ñu wax Naasiru Diin Cissé mu dëkk ca Kano nekk imam ca pale ba ma dajeeg moom mu gën ma dégg wolof loolu loolu luñ war a bàyyi xel la ma dajeeg ku ñuy wax Fatimata Coota mu dëkk Coota ma dem mu ne ma sëriñ bi na nga def ma ne ko yow foo déggee wolof mu ne man sénégalais laa di suma yaay waa sénégalais ba kuy sa yaay mu ne umul xayri gis nga ko bàyyi noonu la def ci liggéeyam kon liggéey bu sellee te yaatul yàlla tax kenn mënu ko tere tasaaroo ma dajeeg Cheikh Xaafa wul du nax wi doomam ji ñuy wax misri ah nga xam ne doomi bàyyi jigéen moo ko jur kazalika naka noonu kon liggéey bàyyi dafa yaatu lool bàyyi duut ku ñuy xam di ko nëbbu parce que moom nëbbu te lu baax rek la fi def kon nañu góor góorgóorlu kon ñun ñi nga xam ne nag ñoo koy askanoo am nañ liggéey nañ góorgóorlu ci xam-xam njub fuñ taxaw ñu ràññi ñu ci xam-xam ràññuñ ci njub duñ ñu xeeb yenn yàlla defal ñu loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërë ngeen jëf <laughs> jërëjëf jazakumullahu